c'est mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu yéen ñi safoo di ànd ak Alfayda FM kaddu gi di bàyyeekoo ci immeuble Cheikh Imam Assane Cissé fii ci dëkk bu sell bii di Medina Baye dal leen ak jàmm ma jukkil leen li gën a fës ci boppu xibaar yi waajal tabaski naka xar gën caa fës naka ci diwaan bu kaw Kaolack lu toll nag ci juróom-ñaari bërëb yoo xamante ne bii dañ fay jaayee xar la ñu nemmeeku naka ci biir diwaan bi lépp naka bokk ci mën a yembal rek lépp lu jëm ci wàllum tabaski bi bërëb yooyu lee gën caa fës di ko woon ak dara bu jalañ daañu ca école si ba soox jafe-jafe yi nga xamante ne ñu ngi koy dund bokk nag ca bâtiment yu yàgg te màgget lool mu doon mbir moo xam ne wóoratul nag ca ndongo yi nga xam ne ñoo fay daal di jàngee la sàkku nag mooy tabax yu yees ci ni mu gën a gaawee daañu ca dégg Cheikh Tidiane Diagne bu ñu nee Tabaski nag xam ne wàllu mbalit da cey bari lool loolu moo waral nag ñi nga xam ne ñoo di SONAGED nag jël nañ ca seen ay jéego yu mat sëg nag ba gis ne ne lu jëm ci Tabaski bi set gi dina daal di fës daañu ca dégg soxna Ngoone Njaay buñ ca noppee daañu ca toftal xibaaru biti réew ak Alioune Badara Diop tàggat tàggat yaram ak Serigne Moussa Kane euh, tabaski gay ak baax a Diop ndar keppale ko li ci yéene kaay ak Seydina Omar Cissé mbokk yi lee ñoo fi nar a ruusee ci ay xibaar ngeen taaxee lu tuuti ma dugg ak yéen ci yeetal week faram fàccee bi gannaaw bàkk bi lay doon. xibaar yi ak Mariama Ba. bàkk ba jib naa ba noppi Alfayda FM kaddu gi di bàyyeekoo ci dëkk bu sell bii di Medina bàyyi eh, juróom ñeen fukk yu toftal benn ngeen koy teewloo ci diwaan bu Kaolack nangaan Sénégal ak li ko wër eh, tey nag di aljuma fukki fan ak ñeent ci weeram juin atum ñaari junne ñaar fukk ak ñeent njàppalu Alaaji Libaas Mbay la ñuy seen ci machine bi na ma ko junjee woon ca boobu ba noonu lay duggee ci yatal week faram fàcce bi eh, bërëbu jàngeekaay bi nag di Sibassor 1 yàgg ba ñu ko taxawalee tax nag ba wàllum kaaraange amatul ca école boobule ndax lu jëm nag ci wàllum bâtiment daal yu màgget bay toj nag moom nañ fa daal di nemmeeku ñi nga xam ne nag ñoo di kilifa ya fay tii ci école ba la ñuy daal di sàkku mooy ñu jàppale leen nag saafaraal leen bâtiment yu màgget yooyu lee euh, Cheikh Tidiane Diagne nañu ciy teewlu. Sibassor 1 école bi nu mel ñu ngi ko créé ci atum 1959 boobu ba léegi nag taax yi nga xamante ne ñoo fi nekkoon ñoo fi des ba léegi tax na nag jamono ji mu jur ay jafe-jafe yoo xamante ne mu ngi ci biir l'école bi Ousmane Diouf mooy directeur u barabu jàngukaay bi lay nekk ci biir commune Sibassor Daara. waaw école bi dafa am ay salle de classe yoo xam ne dañoo yàqu dañoo am ay salle de classe yoo xam ne dañ ko war a donc euh, mur yaa ngi commencé yàqu tableau yi ñu ngi commencé yàqu te xam nga école bu amul budget day dema dema ba ba yu bëri yoo xam ne da koy bugg a def sax doo ko mun a def parents d'élèves yi ñooy cotiser yenn saa pour jàppale fay gardien bi ba yenn saa pour jënd courant pour bu ñu amee aussi reprogramme bi ñu def ñu jàpp di école bi nu mel ñu fexe ba daal di koy soppi maanaam daane taax yi defaraat ko ba mu gën a mucc ayib. waaw dafa laaj réhabilitation quand même laaj na classe yoo xam ne ni dañ ko war a réhabiliter parce que salle yi dañoo yàgg depuis 1959 bâtiment bu taxaw ba léegi wax dëgg yàlla laaj na mu kii képp koo xam ne tey am nga sa ndimbal boo xam ne danga koy def ci école bi pour ñëw tabaxaat ay salle de classe pour tabaxaat aussi ay toilettes pour jàppale école bi wax dëgg yàlla ñu ngi lay tàllal loxo xam nañ ne nag mairie mairie Sibassor mi ngi def liggéey bu mucc ayib parce que jàppale école yi docteur Ousseynou Diop wax dëgg yàlla mais loolu yëpp doyul li fi jàngee ci ay ndongo lim bi daal di takku lool barab bi nu mel nag njàqare gi nga xamante ne ñi fi jàngalee ak ñi fi jàngee ñëpp am na ñu ko bokk na ci examen CFE ak entrée en sixième bi nga xamante ne centre lay doon ci biir tund wi ko wër te ren ñu fas yéene ko fee amalaatee ci anam goo xamante ne tey na xel ndax bâtiment yi wóoratul la bon école bi actuellement mi ngi ci quatre cent élèves donc tey boo jëlee quatre yooyu am na yoo xam ne ñoo fay def examen yoo xam ne aussi fa la ñuy def Alxayaay fa lay defee école Sibassor 3 fa lay defee école Ngoloj Jarno aussi fa lay defee donc mu nekk quatre écoles yoo xam ne ñoom seen élèves yëpp foofu la ñuy examen donc centre examen la quoi même BFEM bi sax daaw lañ ko délocaliser yóbbu ko lycée ak daaw jéeg mais même BFEM bi sax foofu lañ ko doon defee ñi nga xamante nag ñoom ñoo di élèves yi jamono ji ñoom ñoo daal di benn mbir mu ngi tuddee porte ci seen lëkkaloo ak Enda directeur euh, école Sibassor 1 nag moom ngay addu ci melokaanu école ba ak nag yenn ci ndimbal yi nga xamante ne bii nguur gi da leen ko daan jox waaye mujjee gi dafa daal di taxaw muy sàkku nag ngir ndimbal yooyu leen ñu daal di koy jotaat euh, kàddoom Cheikh Tidiane Diagne moo ñu ko taataanal. budget de fonctionnement la doon den xam nga tey école dafay laaj ay dépenses parce que tey xale yi boo leen buggee natt ci seen wàllu composition dañuy soxla ay feuilles feuilles yooyu noonu ay saisies lay laaj ak euh, élèves ci benn école élève bu ci nekk tey buy def composition dina utiliser tey par exemple tey ci gàttal rek ñeenti feuille tey donc boo xoolee loolu yëpp ci feuille dafay laaj nga jënd ay rames de papier am machine bu ko tirer am machine aussi bu ko photocopier te loolu yëpp xam nga bu amul day doon tolof tolof. lu leen état doon jox. état da doon seet en fonction ci effectif école bi maanaam tey par exemple école bi am élèves mënul yemale ak école bi nga xam ne 200 élèves moo fa nekk wala 150 élèves par rapport à la taille de l' école moom la état dugalee ci compte école bi aussi nekkul ne directeur bi mooy dem jël xaalis bi mais dafa am lu ñuy wax comité de gestion d'école maanaam directeur bi la ak trésorier bi ak président bi. loolu loolu dañ ko taxawal boobu ba léegi amatul. depuis juróomi at wala ñeenti at daal amatul. effectivement man xam naa avec le gouvernement actuel bon loolu yëpp dina ñëwaat quoi loolu yëpp incha allah dinañ ñëw pour accompagner école da doon dimbali école bi ci fonctionnement état bi nga xam ne nii par exemple gouvernement bu bees bi ñu am avec notre président Bassirou Diomaye Faye am na liggéey bu rafet boo xam ne ñu ngi koy def ci école yi te je crois que yu bëri sax dinañ ko corriger parce que ministre de l'éducation mu ngi koy wax ci programme yi ñuy jàngale kon aussi nan la ñuy def pour accompagner école yi aussi en terme de en terme aussi de matériel didactique et autres. lu jëm nag ci waajalub màggalu Touba atum ñaari junne ñaar fukk ak ñeent jéego ya nag ñu ngi woy ba léegi di ko jël tax nag ay ndaje yu am solo mu ngay woy itam nag di am ci ñu xool nag jafe-jafe yi nga xamante ne bii mu nga foofulee ca dëkk bu sell ba te ñu woon koo mun a moyu ngir lu jëm nag ci màggalub Tuuba bi la waajtaay li Xaadim Aan mi nga xam ne nag moo di préfet bu Mbàkke àdduna ca Mamadou Moustapha Mbaye moo ñu ko taataanal ci cëppaandaw gi liñ ci mën a wax mooy am ñu yaakaar bu baax a baax ci màggal gi ñu jëm même si ci biir nawet lay tombeel mois d'août ku ko wax xam ni weer wuy bari taw la weer woo xamante ni mën na ànd ak jafe-jafe surtout ci foo xamante ni mbooloo mu bëri nañ fa daje. def nañu en revue en tout cas lépp li nga xam moom mooy secteurs yi concerné wàccaay mën naa ni daanaka njàqare amu ci parce que it ñu jàngatee at yi ñu génn doon woon am ay jafe-jafe bu baax a baax muy demee domaine wàllu secteur santé parce que foofu euh, disposition yi ñu doon jël daanaka presque moom la ñuy reconduire et surtout dañuy gën a renforcer même disposition yi ñu doon jël muy lu demee ni ci surtout wàllu médicament yi ñu yokk ko poste de santé poste médico avancé donc ñu ubbi ko it également ci dëkk bi yëpp yaakaar naa ni en tout cas hôpitaux yi pare nañu pour maanaam def même gratuité lu toll ci presque juróomi fan wàllu sécurité yi yaakaar naa ni daanaka jafe-jafe yi mën nañ ko cee bañ a am balaa lu jiitu màggal gi dina am ay opération de sécurisation combinée yoo xamante ni police ak gendarmerie dinañ ko ànd def ko pour dissuader ñi nga xamante ñoom ñooy malfaiteurs yi ci wàllu ndox mi am na ci ay jamono ci ginnaaw Touba parce que am na ay forage yoo xam dañoo paanoon am ci ay forage yoo xam aussi defaroon nañ ko ci wàccaayu màggalu Touba daaw mais forage yooyu fan yi passé doonu woon dox muy lu toll ci juróomi forage mais forage yooyu mën nañ ni macha allah fi nekk ni forage yi paanoon yu ci bëri dépanné nañ leen. yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM juróom ñeent fukk yu taftal benn ci diwaan bu Kaolack nangaan xarala yees yi tax ngeen koy teewloo ca biti réew ci diwaan bu Kaolack nag barab yi nga xamante ne moom nañuy jaayee xar takku na fi lool nag lépp rek ngir yembal lépp lu jëm ci wàllum jëndum xar ci diwaan bi waajal tabaski beeg xar yi ñu teewlu ci Alim Badara Diop ngir ñëpp mën a ci xar ci atub ren bile ci waajtaay tabaski bile ci département bu Kaolack téeméer boo jël juróom-ñett fukk ak juróom yi mënees na wax ni yemb na ci wàllum approvisionnement ci diwaan bile luy tolloo nag juróom-ñaari point de vente yoo xamante ni reconnaître nañu ko ginnaaw bi ñu sukkandiku ci kàddu kii di Cheikh Ahmad Bamba Bey moom mi la mooy chef de service départemental de l'élevage ci département bu Kaolack. depuis ñu commencé def les points de vente depuis ñu commencé def arrêté gouverneur bi il jours fixant les de vente dans le département am nañ fi sept de vente au niveau donc mais point de vente bi yi ëpp solo ñi xarifa yi ñëw COFAC fii Seleka xam ni ci mbedd mi daay dañuy tente di génne seen ay xar donc bi ñu defee situation bi daal mën nañ wax ni par rapport aux besoins du département vraiment on est presque à ginnaaw instruction yi nga xamante ni gouvernement bi joxe na ko ci wàllum contrôle bi wan tamit euh, ci wàllum subvention bi ñu jàpp ne fii moom ci département bu Kaolack Ndangaan lépp yemb na te lépp li xam ne gouvernement bi waxoon na dañ koy def depuis CDD ba maanaam force de défense ñu ngi béy sécurité bi service d'hygiène ñëw nañ def nettoyage des points de vente donc les mairies aménagé nañ les points de vente élevage vingt jours avant fête bi ñu ngi foofu di def les laissez-passer pour contrôler le suivi sanitaire des animaux animal bétail bi nga xam ne subventionné nañ ko il une semaine commencé nañ ko positionner dans les de vente pour xarit bu ñu am lu lekk ngooñ moom xarit seen bëri waaye fokk nat wees na ko amuñu benn jafe-jafe parce que bu ngeen seetloo il y a deux mois président de la république jël na benn circulaire boo xam ne daf noonu taxe boo xam ne dañ koy teg ci xar boo xam ne day ko teg donc xar yi dañuy dugg sans taxe te dañuy autoriser xar yi ñu am ñetti nit ñoo xam ne dañuy nekk ci camion yi pour mën a sàmm xar yi njur yi pour ñu mën ñëw lu leen laaj dara ba buñ dugg see fii ci Sénégal ñu ñëwee jaay tranquillement seen ay xar ci point de vente yi dinañ fa fekk ñi nga xam ne mooy ndaw buur yi buñ incha allah nemmeekuñ tamit benn épidémie ci xar yi rek. waaw amaguñ pour le moment gisaguñ quelque. défi bi nga xamante war nañ ko relever ci wàllu approvisionnement ci région bu Kaolack Ndangaan moo doon juróom fukki junni jamono ju toll nag ginnaaw bi ñu sukkandikoo ci ñu yor farine boobu li fii ci région bu Kaolack Ndangaan ñu ñuy xamal ni li tolloog juróom benn fukki junni yu toftal juróom benn téeméer ak fukk ci ay xar yoo xamante nemmeeku nañ ko ci diwaan bu Kaolack ba jamono ju toll nag nemmeekuñ benn épidémie boo xamante ni ñeel na xar yi ginnaaw ci loolu nag di sëmën àdduna yi fii ci région jàmm na ngir kat ñu a amal tabaski bu mucc ayib. Cheikh Amadou nag moom mooy chef service départemental bu yëngu nag ci wàllum jur gi ci diwaan bu Kaolack nag mu ngay addu ci lu jëm nag ci li nga xamante ne moo di piqûre yi ñu faral nag di ko piqûre xar yi te nag jamono ji ci jamonoy tabaski nañu nekk buñ leen piqûre war naa amee diire boo xam ne moom la piqûre boobu lee di daal di jël doom ci micro Alioune dax Diop. voilà très bien parce que loolu aussi lu am solo la xam nga ndawal moom tabaski dafa am particulier ko laarifee parce que ndawal gi buñ paree dañ koy jëfandikoo léegi ni koy jëfandikoo nag dafa baax ñu wax suñu mbokk askan naka la nga koy jëfandikoo parce que xar bi da ngay jël rey doo koy lewatal rek jël lépp dugal ci sa frigo li gën mooy boo ko lewatalee fekkee nga xool par rapport à tes besoins nga dagat ko par rapport ak def ko ay sachet maanaam bu ay kilo nga soxla wala ay liibar nga soxla nga dagat ko def ko ay sachet def ko boo soxla kilo génne boo soxlaa liibar génne mais li bon mooy nga congelé ba pare génne décongelé dagg recongelé waat tàpp parce que ba déjà boo génnee congelé rek processus de défection bi day commencé te fekkee mën nga ci indi ay gàllankoor pour la santé ñu may wax aussi suñu mbokk éleveurs yi ñi nga xam ni ñi ngi am seen xar ñuy waaj ñu gis ñuy feebar instant bi waruñu ko pikiir waaw dafa war a dem ci vétérinaire ñu wax leen lan lan war a def parce que dafa am lu ñu de tuddee délai d'attente boo xam ne buñ pikiiree xar mi dafa am diir boo xam ni war na bala ñuy lekk yàpp bi diir boobu dafa war a def médicament bi dafa war def ci biir ndawal gi ba pour sama gi après rek xëy na à la longue mën na la indil ay gàllankoor. docteur Alaaji Assane Cissé nag moom mu ngay xamle ni ñu war a jëfandikoo nag ndawalu tabaski bi nag ak ñam ya nga xam ne moom nañ ca war a teg rawatina nag ñi nga xamante ne bii dañooy wéyaaleep jàngoro war a yi tamit ak gëstu ji seenub docteur mu digal leen ci lu jëm nag ci wàllum tabaski beek ñam ya ñu cay lekk kàddoom Arona Niang moo ñu ko taataanal. lekku tabaski ni ma baaxoo di ko waxee repas de fête restera toujours repas daan lekk avant fête fête nekkatu fa mais ñi nga xamante ni nii yàlla dafa def ñu am tawat yu ñuy dund déjà dañuy xam seen bopp jour fête yow da nga def AVC wala da nga am diabète wala da nga am tension buy yéeg wala wala wala sa docteur wala sa diététicien ne la wàññil yi moytul yi jour fête bul si emporté wu loolu nañ si def attention bu baax a baax kon ñi am AVC ñi am tension buy yéeg nañu moytu yàpp xar bu dis bi su mënut ñàkk nañ leen tànnal morceau yi gën a néew graisse ñu lakkal leen ko wala ñu muusalal leen ko wala ñu misul leen ko te ñu teel ko lekk te lekk si lu yem mais bu loolu jàllee ñi nga xamante ni yàlla dafa def dunduñu problème yooyu mais c'est juste pour la prévention du benn yoon bi ñu koy lekk si jour bi moo leen mën a indil problème de santé yooyu wante nag dute intoxication alimentaire moo ngi fi pour éviter yooyu yàpp bi contrôler si sa bopp ngeen bàyyi xel aussi la conservation ndax ni ñuy conserver yàpp bi parce que lépp mënuñu ko lekk si bés bi bi ak abaay yi maanaam lépp lu nekk si biiru xar bi bopp bi yeel yi du ànd ak yàpp bu rouge bi da nga koy ber nga séparé ko loolu aussi ñu bàyyi si xel bu baax a baax te it buñ koy conserver nañ ko def ay petit sachet xool yi nga xamante ni utiliser ko ko léegi nga def ko sa taatu frigo ko yi nga xam ni moom ngay njëkk a utiliser nga def ko si kanam loo soxla nga génnee sachet bi nga xam ni doo ko dugalaat mais jël sa yàpp bépp def si benn mbuus génne dindi dugalaat loolu day tax yàq bi gaaw a dénaturé wu te day lay jural li ñuy wax intoxication alimentaire maanaam yëngal biir te jouru tabaski nañuy lekk légume bu doy maanaam ak lu ñu mën a togg nañ ko boole crudités yu bu doy boole ko di lekk fruit boisson yi bu mënut ñàkk ñu privilégier les jus naturels sa bissaab sa ginjeer sa ditax sa buy nañu privilégier loolu wa ilaa it ñu jël yenn boisson yi nga xamante ni sont à base de fruits ndax lu si ëpp si boissons yi ñuy jël sont au goût de dañuy am caf ko fruit bi mais en réalité ay composants chimiques rek la ay colorants ak suukar su bëri. ñu desandi nag ci tabaski boobule tabaski nag doon sun na lewetal ca gàtt muy xar nag doon mbir moo xamante ne la muy faral di àndal waaye nag façon gàtt ba nga xam ne moom nga war a jënd ak itam nag melokaan nga mu war a am at sax ya mu war a toll jullit bu nekk war nga koo xam laataa ngay sóobu ca jëndum xar googule xam le nag yu Serigne Daara Youssouf Bité Alioune Badara Diop moo ñu ko taataanal. xar bi nga xamante ni moom lañ tànn pour tabaskee ko awalan li si njëkk mooy na nekk kuy moo xamante ni bu béjjënu la kuy nag ñu ko waxee jublu nañ ci mu rafet ndax yonent bi moo waxoon ne azimu daxayaakum na ngeen màggal seeni tabaski ndax moom ngeen di war pour jéggi siraat bés penc defe naa kuy muñ war a war warta nekk comme kuy yi nga xam ne moom lay si si di jënd wala tóore tóore yi xar moomu nag am na lu koy ayibal mooy lu koy yàq ba du mën tabaski am na it loo xam ne moom lañ si bëgg ba mu mat tabaski xar ma góor dañ soxla soo ko amut nga dem si boo xam ne buñ tàpp la buñ tàpp mooy boo xam ne dañoo wàññi ngóor gi soo amut boobu nag nga doog a wàcc si bu jigéen yooyu yëpp boo demee ba amoo ko nga ñëw si béy bu góor soo ko amoon nga ñëw si béy boo xamante ni béy bu jigéen la lii lañ bëgg si tabaski yooyu yëpp boo demee ba amoo ko nga def loo am ak loo mën nga xam ne wàcc na la jarul dugg si loo manut jarul def loo manut xar moom nag soxla nañ ci moom weer benn juróom-ñetti weer am na sax ñu wax juróom benn weer juróom-ñeenti weer ba fukki weer jëm kaw bu dee bay la nag at jëm kaw baax li nga xam ne moo koy ayibal bu du man benn bu fekkee béjjén bi dafa damm ba wér mën naa tabaski bu dee béjjén bi dafa damm di nàcc ba bésu tabaski mu ngi nàcc wérut mënut a tabaski nopp bi bu xotteekoo bu fekkee ne lu si xotteeku lu tuuti la mun naa tabaski su bëree mënut a tabaski bu fekkee nopp bi dafa dagg ba jeex tag mënut a tabaski xar mu làggi tamit lu ñuy moytuloo nit ñi la mooy xar moo xam ne dafay suux ba boo gisee mu ànd ak coggali xar maanaam mbooloo xar yi nga gis xar mii ni muy nii am na lu tax mu koy doxee xar ma moom tabaski ak bi nga xam ne dafa lompañ ba ëpp mooy boo xam ne laa sax ma mooy amul geres maanaam bu tuuti lompañ làpp nga xam ne sax mun na yor ay feebar ak yooyu noonu xar yooyu yëpp képp ku ko tabaskee mënut a tabaski. yéen a xibaar yi ci Alfayda FM Alfayda FM mooy baatu askan wi ñu dem ca beneen xibaar Cheikh Omar gay nag moom mooy directeur général ñi saytu nag lu jëm ci wàllum kaaraange ci tali bi mu ngay ñaax nag ñi nga xam ne ñoo di chauffeur yi nag ngir ñu bàyyi xel nag ci code de la route waaye tamit nag bàyyi yokk gi nga xam ne ñu ngi koy yokk paas yi ci xew-xewu diine bi nga xamante ne ñu ngi koy jubal si mu jëm ci wàllum tabaski kàddoom Arona Niang moo ñu ko taataanal. si jullit tabaski bi d'abord parce que incha allah rabbi di ñaaxaat Euh, rawatina euh, les chauffeurs professionnels ñu respecter disposition code de la route ñu daw ndànk ñu bañ a surcharger oto yi ñu bañ a yokk paas yi ñu bañ a def sur nombre de passagers ñu respecter lépp li nga xam ne code de la route wax na ko parce que ci feetu diine lañ jëm bu ñu jógee ci wàllum feetu tabaski boobu it ñi ngi dëgg ma nawet nawet ñëpp xam nañu période bi nga xam ne day bari accident lool parce que tali bi day tooy tali bu tooyee daanaka adhérence pneu bi ak tali bi dafay wàññeeku dana néew doole bu fekkee pneumatique bi nga yor baaxul

la koy waral nag bokk ci li nga xamante ne bii moo di doxalinu askan wi ci kaw tali bi xam le nag yu jéen njaay nag ci micro Arona Niang chiffre yi ku ko xool war ngaa tiit parce que accident dañoo yokk dañoo yokk état mu ngi def lépp acteurs yi ñu ngi def lépp di sensibiliser mais li ñu limité li ñu bloqué mooy le comportement humain parce que boo xoolee accident yi les quatre-vingt-douze pour cent des accidents lépp ci ñun la jógee nous le facteur humain on la principale cause des accidents war naa tax ñu war a mën a changer suñu comportement wala changer suñu attitude bu ñu nekkee ci kaw tali wala bu ñu nekkee ci volant. 2021 665 lañ enregistré woon comme ay décès liés aux accidents en 2023 on est à 733 décès ay accident bi ci gën a marqué ñëpp mooy accident bu 6 kilo bi bi nga xamante ne amoon nañ 39 décès donc il faut que ñu xoolaat suñu bopp ñu éduqué waat suñu bopp te xam ne tali bi ñun kese moom moomuñu ko dañ ko bokk ak ñu bëri donc il ñu am cette coupure sécurité routière waaw Dakar moo ëpp accident yeneen région yi parce que Dakar da di milieu boo xamante ne trafic bi fii la gën a dansé ba pare nit ñi dañoo yàkkamte duñ daw ndànk oto yi màgget nañ dóoru yi bëri nañ yoon yi xat nañ moo tax buñ defee accident rek day ne accident bu xaw métti te moo li ci gën a bëri mooy surtout accident yi nga xam ne dafa impliqué les deux parce que ñoo amuñu benn protection oto bu leen bëkk ñu daanu boo deewul beaucoup de facteurs qui font Dakar enregistré beaucoup plus d'accidents et de décès. lu jëm nag ci wàllum dawalub moto deux roues nag ci biir réew mi mu nekk mbir moo xam ne ñu bëri nag léegi léegi dañ cee xaw a sànni xeer waaye nag moto yi lee doon nañ ñoo xamante ne mënuñ leen a génnee ci lu jëm ci wàllum dem dikk bi mu di transport ndax itamit nag sànni ñu bokk xamle ci wéyalu kàddu Diène Ndiaye Arona Niang moo ñu ko tataanal. moto yi mënuñ leen génne ci circulation bi parce que ci lañ bokk ci lañ bokk et code de la da ko prévoir donc lu ñu war a def mooy ñu encadrer leen.

dafa yombul français yi nekk fii BA 500 ñoom ñoo koy def te nekkul nañ n'importe qui moment dem pour fay pour def formation gendarmerie centre bi mu ubbi à Mbao prévoir na ko mais ubbeeguñ ko pour civil yi actuellement ñeneen la faroon foofu les forces de défense et de sécurité mais prévoir nañ ko du donc ñun dañu war a créer école de formation pour les dóoru moo am centre de formation boo xamante ne ku bëgg a passer permis ku bëgg a jàng moto di nga ñëw parce que l'école est là. Et nous devons de telle sorte que, comme nous former là, tu pourras vraiment être formé, quel que soit tes moyens, parce que très important. yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM 90.1. dugg nañ ca ñaareelu xaaju xibaar bi ñu koy teeloo fépp ci diwaan bu siin Saalum Bawol ba jàpp waalo ñu dem ca beneenu ba xibaar bu ñu nee tabaski nag ñëpp xam ne ne lu jëm ci wàllu mbalit day faral di bari loolu ci dëkk bi te it tamit nag mbalit moomulee xëy na askan wi ngir ñu nekkee ko nag dafay xaw a doy waar tax nag ba ñi nga xamante ne ñooy yëngu ci wàllum bale ak tonni mbalit ci liggéey bu rafet boobu lee di SONAGED nag daal nañ cee jël ay jéego yu mat sëkk jéego ya ñu ci jël ak soxna Ngoone euh, Njaay mbaa ñuy génn nag ci événement yu ci mel ni tabaski lii di mbalit mi moom daanaka mënees nay wax ni day tasaaroo jalaañoo ci dëkk bi ci kaw loolee nag ngir wattu kaaraange askan wi jëm kon ci seen ak wàllu wér gi yaram tax na nag kër gi sàlloo an ak tonni mbalit mi ñu daan ko woowee UCG te tey jii nag ñu tuddee ko Sonaget ñoom itamit nag di ci amal taxawaay gu mucc ay ay Aïssatou Diouf mooy délégué départemental bi ci Kaolack. comme niñ koy faral di defee saa su nekk par bu nekk mun nañ ne actuellement sax loolu routine la ci Sonaged. comme duggulee déedéet duggule chaque année nii la muy korité muy tabaski grande fête yi fi am yépp chaque fois Sonaged dafi am taxawaay bu mag a ba. jëm ci taxawaay ak liggéey boobee nga xamee ne dañu koy faral di amal ci yu ni mel moo waral ñu daal di tëral nag ab pexe boo xamee ne dañu koy lal fas yéene koo amal laata bés ba ba bu ñu ko jàllee. mun nañ ne teg nañ fi un dispositif boo xamante ne c'est fonctionnel H24 ñu ngi fi xam nañ ne période. fait dafay am production de déchets moom moo tax saa su nekk euh, dañuy yokkal de mooy supplémentaires bokk na ci moyens yooyu am nañ pour cette fête de tabaski dinañ am plus de cent cinquante agents yi nga xamante ne dinañ sillonner les sites de forte production mooy marché yi garage yi ak grande artère yi nettoyer leen dinañ am tamit quatorze tasseuses yi nga xamante ne dinañ yokk si dispositif bi daal di sillonner fépp foo xamante mbalit mën na faa nekk y compris PRN yi ñu fi am euh, am nañ fi huit PRN am nañ fi 23 euh, PP ak euh, plus de 46 caisses polybène boo xamante ne dina permettre population bi buñ indee seen déchets ñu daal di ko si def directement. naam sax nag bés bu yàlla sàkk ña ngay def seen ak liggéey ca na mu waree waaye terewul rek ña ngay sàkku ci askan bi seenug ndimbal jëm kon ci soppiwu doxalin ak it amal geneen taxawaay ci setu dëkk bi. xanaa di ñaax askan bi rek point yi nga xamante ne teg nañ fa ay PP ay caisse polybène ak oto yi nga xamante dañuy collecté ñu si sotti seen mbalit parce que pour ñoom la pour ñoom ñoo tax ñu teg ko au lieu ñuy jël seen mbalit di ko sotti si suuf di salir euh, wala ñuy jël seen butit yi di ko daal di sotti ci biir kanaal yi. comme nañu koy defee saa su nekk nag ngir fàggul askan wi seen wàllum wér gi yaram ba ci sax nag wàllum cet geek cell gi tax na nag kuréel gii ñu gën a xamee ci UCG muy Sonaget ak i ndawam laxasaayu rek ngir daal di sàmm xar kanamu dëkk bi. ay Aïssatou Diouf nag moom mooy délégué départemental Sonaget ci kaw Kaolack nag moom mu ngay àddu ci seenu taxawaay gi nga xamante ne am nañ ko ngir gis na ne lépp lu jëm ci wàllum set nag ci askan wi te mun cee nekk nag ci biir tabaski bi daal di nañ cay taxaw bu baax a baax kat doom ci micro soxna Ngoone Njaay comme ñu koy waxee saa su nekk rek Sonaget euh, moo ngi gérer lépp li nga xamante ne moo ngi dem si dépôt ci mbalit mooy déchets solide donc bu ñu waxee déchets solides dañuy naan compétence municipalité la mais comme municipalité déchets yi moom moo tax état bi créé branche bu ñuy naan UCG ñu dëppee ko actuellement Sonaget donc muy jàppale la mairie di jàppale askan bi aussi ci seen éradication mbalit donc boo xoolee ci biir commune bi yëpp ak feneen ak feneen gox yi donc ñoo fa teg suñu dispositif muy bac à ordure muy PRN muy polyben ak agent yi nga xamante ne chaque jour ñoo ngi si yoon commune bi pour nettoyer grande artère yi pour population bi mën a nekk seen jàmm benn mbalit bañ leen déranger. embouteillage bi ramassage bi aussi seen liggéey la. waaw effectivement parce que am nañ ay euh, camions yi nga xamante ne ñoo ngi fi euh, chaque jour matin et soir ñoo ngi collecté donc euh, di dugg ci grande artère yi di dugg ci biir commune bi aussi di def ay porte à porte di collecté mbalit mi donc am nañ fi au nombre de quatorze tasseuses yoo xamante ne niñ ko organiser matin et soir la donc chaque jour ñoo ngi jël mbalit mi ci biir dëkk bi. ñun boo xoolee ni ñu organiser suñu liggéey pratiquement bu sax bëri de ce fait tabaski bu jàllee tamit mën nañ ne teg nañ fi un dispositif boo xamante ne c'est fonctionnel H24 ñoo ngi fi dinañ ko teg mais day am suivi ñu comme à l'état initial liggéey di dem donc de ce am benn jafe am mbir yoo xam ne nag askan wi tax dañu koy faral nag di ko def bu tabaski bi weesoo muy lépp loo xam ne mbalit la wala loo xamante ne moo di décide ba bàyyeekoo nag ci xar yi ñu koy faral di ko jël di ko sotti ci kanaal yeeg kaniwo yi nga xamante ne bu fàttee su nawet bi jotee daal dafay indi jafe-jafe tax nag ba ki nga xamante ne bii moo di Cheikh Tidiane Dièye mi jëwriñ ji ñu dénk nag lépp lu jëm ci wàllum ndox ak wàllum mbënn nag mu ngay daal di ñaax askan wi ngir ñu mayu mbir yooyu lee kàddoom ci micro Alioune Badara Diop. xam nga le premier juin bii ñu génn président Bassirou Diomaye Faye dafa woo askanu Sénégal ne leen li nga xam ne moom la ñu dëgmal ci réew mi bëgg koo def muy transformation systémique pour un Sénégal prospère et souverain loo xam ne rek état koy def loo xam ne rek président koy def wala wala gouvernement ñëw jël le projet ñu réaliser ko parce que aw askan pour mu transformer wu moom mooy jël initiative wu jàpp ci bu baax a baax ñëpp gëm ko changer comportement yi gën gëm réew mi nekk ay vrai citoyen nekk ay vrai patriote loolu nag tax mu woote bi mu wootee le premier sénégalais yi génn nañu nettoyé nañu dëkk bi alhamdulilah fépp fu ñu dem fekk nañu sénégalaise ak sénégalais yëpp génn râteau bale curé caniveau yi defar ba mu jekk waaye ñu jëm nag ci tabaski te dañu baaxoo malheureusement saa ñu yeggee ci tabaski lépp lu ndoxu taw yi dañu ciy sottiwaat ay mbalit sottiwaat ci xar yeeg sottiwaat ci sànni ci der yi mu bouché waat yàq liggéey bi may profité nag fii di lancer appel sénégalais yépp pour ñu jàpp ni réew mi bu ñu bëggee mu transformé wu ñun képp ku ci nekk jàppal ni gëdd wala sañ-sañ wala pouvoir bi responsabilité bi président am ci réew mi jag yow citoyen bi moom nga am donc nañu fexe ba bu ñu yeggee ci tabaski bi ñu bañ a tilimalaat ñu bañ a sànni xar yi ak mbalit yi ci biir canaux yi ak ci biir yi nañu ko xam ne foofu lañ koy ministère de l'urbanisme la dépendre danañu def seen kéemtalaay kattan pour ramasser mbalit mi waaye bu ñu jógee ci tabaski bi tam mois de juillet dana amaat beneen journée boo xam ne journée de seetal suñu réew lay doon parce que journée bi président woote du woon rek mois de juin bi weer wu ne dafay wootewaat pour nit ñi génn benn bés boo xam ni danañu ñëwaat nettoyer bu ñu fexee ba tabaski bi romb ci jàmm te tilimaluñu bu ñu génnee di balewaat yomb ci ñun moo tax vraiment may lancer appel sénégalais ne ñoo ngi koy commencé gis maanaam changer comportement ñu dugalaat ci ay pono wala sànni ci ay der wala yu demee noonu liggéey bi yëpp dana yàquwaat donc vraiment c'est un appel boo xam ne bii maa ngi am yaakaar ni sénégalais yi danañ ko dégg te danañ ñoo jàppale ñu ci bu baax a baax pour que réew mi gën a set ndax ndox moom yoonam boo ko ubbee rek dana wàññi lu bëri ci inondation yi te xam naa ni inondation bu amee ñëpp ñooy nekk ci jafe-jafe donc képp ku nekk ci Sénégal surtout ñi dëkk ci zone yi nga xam ne day am ndox muy taa war ngaa nekk premier acteur pour xeex wàllu mbënd parce que bu ñu ko deful rek ñun ñëppay nekk ci ay difficultés xabaar yi bitim réew xibaaru biti réew yi Alioune Badara Diop maa ngi lay dalal. ziar la a baax euh, soxna Mariama fukki doomu aadama yoo xamante ñoo ñàkk seen bakkan ci ni mu ngi ni way liggéeykat nekkoon ginnaaw bi nga xamante nañ fësal nag euh, xabaar yi ni mel ci fàttali nag mbir mi ni mel mu ngi am na ni ngi ne àllarba bile wante nag euh, jotagu ñoon am li nga xam moo di bilan global bi nga xam moo duppee ci incendie bi ni mel ginnaaw nag xibaar yi nga xamante ne fësal nañ ko si jëw li nga xam moom lañ dénk wàllum biir réew mi mu jàpp ne nag jéye bi ni mel jur na luy tolloog juróom fukki doomu aadama yoo xamante ni ñàkk nañ seen bakkan wante tamit ay yàqu-yàqate yi moom foo ko natt weesu na ko bitim réew ñu ci réew bu Nigéria wax ci crise économique bi nga xam jamono toll nag kii di Bola Tinubu di njiitu réew moo jamono toll mu ngi koy défendre ginnaaw ci loolu nag bëgg-bëggam bokk na ci nag ñu soppi li nga xamante moo di union nationale bi nga xam ne ñu ko tëggoon ci ay jëmmi jamono wante na waxtu boobu nag askan bi jàpp ne nag li gën a moo di jéem xool na ni mën a def ba yokk li nga xam ne wàllum koom-koom bi jafe-jafe yi nga xam ñu ngi koy jànkoonte ci wàllum dund gi lii jéggi na dayo lool ci fàttali nag union nationale boobu la ñu ko rëddoon ci nga xamante ni kii di njiitu réew ma ko moo di soppi li nga xamante moo di union nationale bi joxaat nag réew bu Nigéria beneen xar kanam. xabaar yi bitim réew. wax ci libération français bi la di Arnaud ginnaaw bi nga xam ne ñu ngi ko teewoon foofu ci réew bu Iran ci atum 2022 kii na xam ne ñu ngi ko tegoon loxo nag ci ñaar fukki ñett ci weer sàttumbar atum 2022 foofu ci yenn ci mbir yoo xam ne ko ko doon tuumal bokk na ci tamit li nga xam ne mu wàllum terrorisme moom il dafa ay at waxtu bi ñu toll nag jox nañ ko liberté delluwaat fi nga xamante ni mu dëkkuwaayam géré bu France. xabaar yi bitim réew. wax ci ndaje G7 bi nga xamante ni ñu ngi ko doon amal ni ngi démb nag lañ ko door foofu ca réew bu Italie li ni mel nag ëmb réew bu États-Unis réew bu Allemagne réew bu France réew bu Italie réew bu Royaume-Uni réew bu Canada ak réew bu Japon lépp na bokk na ci jëm àdduna situation bi nga xamante ni moo di situation financière ngir kat ñu la mën a def ba jàppale réew bu Kiev ci situation bi nga xam mu koy jàngateel ak réew bu Russie jàpp na ci ni bi amal na ko foofu ci réew Italie gën caa fës nag njàppale yi bi nga xamante ni war nañ ko def ci wàllum militaire yi maanaam dolli leen li nga xam wàllum kaaraange ngir kat ñu mën a jugee si jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy jànkoteel waxtu bi ñu toll foofu ci réew bi Ukraine. xabaar yi bitim réew. sant la gërëm la bu baax a baax soxna Mariama fi la yem ci xibaar bitim réew yi yàlla mi borom jàmm tukum jàmm ngam jàmm yàlla ñu may jàmm jumam barak jóge njël ba feet incha allah xibaar wu tàggat yaram yi Serigne Moussa Kane maa ngi lay nuyu. Mariama Ba maa ngi lay fay te nuyu mbokki auditeurs yi ñaanal leen jàmm di ko sàkku ci ñoom xibaaru tàggat yaram yi dañu koy doore ak football leer na naññ ndax surprise ak mbetteel moo am ci li nga xam te ni. bi mooy final coupe du Sénégal bi yoon di juróom fukkeelu yoon bekk euh, ñaar war a dox ci ay euh, club euh, amateur national ci diggante Ferry Foot bu jóge ca Louga ak Mbour Petite Côte bu jóge ca Mbour ñooy laale final boobu nag yenn ci dirigeants yi am na ay kàddu yu ñu jot a yëkkati ñu déglu leen. di wax ne nag tey lii man Jeanne d'Arc bi ma dajeeg ñoom dama ne quelque soit fa man gañe naa déjà ba pare parce que man doomu Gia la Gia man la ba dem en 76 ànd ñoom ñu nekk junior GIA donc aujourd'hui ma dajeeg GIA demi finale coupe Sénégal war nañoo wane GIA bu ci ñëpp jàppee na war a dellu ba mu nekkoon et nous allons militer nous prenons l'engagement nañ ci militer pour la gendarme retrouve quand même les nga xam ne moom lañ ko crédité parce que en Afrique foo dem moom lañ lay la fédération donc il est temps que tous les gens man de cette défaite là ñu réconcilier pour un nouveau ma maintenant réfléchir tranquillement parce que nous avons été avec la douane quatre fois avec la Coupe du Sénégal, deux fois nous avons joué avec Berkane et Fils et cette année nous allons jouer en championnat amateur et remettre quand même vraiment cette victoire également au président avec amateur. Nous avons été encadrés, nous avons été accompagnés, ce qui fait que trois clubs ont en demi-finale, c'est une grosse prouesse. Je crois que nulle part parce qu'il va passer professionnel dina permettre que ñu xam ne le football se joue partout et dans de bonnes conditions. ca Ziguinchor nag ligue régionale bu football bi nag amal na tirage au sort quart de finale championnat régional bi ci senior 2023 2024 ci juróom-ñetti équipe yi nga xamante ni ñoo bokkoon ci compétition bi war a jongante final bi nag ngir jël ticket bi lay yóbbu fi nga xamante ni moom mooy euh, national 2 ni la tëdd ci euh, poule A bi nag Banjana mooy laale ak euh, Finchok. ci pour B bi nag euh, ADTE jël ñaareelu togg bi mooy laale ak euh, ñi nga xamante ni ñoom ñooy CAPS Screening ñu dem ca euh, Europe tey nag bés bu mag ci taarix ci li nga xamante ni moom mooy ndoxteelu Euro 2024 ba am ca Allemagne réew mi di ko dalal sax di Allemagne mooy laaleek Écosse tey bu juróom-ñaari waxtu jotee benn jogante dong lay doon di compétition boo xamante ni nag dina dajale ñaar fukki équipe ak ñeent war a xëccoo li nga xam xamante ni moom mooy trophée bi France ak Angleterre ñoom bokk nañ ci li nga xamante ni moom mooy favori compétition bi ni mel ca France moom ci Ligue 1 ba Lamine Camara moom la ñu tabb nag mu nekk pépite de la saison euh, maanaam football kat ndaw bi gën a xarañ ci at mi ñu sopp ko loolu foofu ca Ligue 1 handball la ñuy waxtaanee ak coupe du Sénégal ci góor ñi Stade Mbour daal dinay bett Gaston Berger daan ko 34 a Diamaguène daal di daanoo ci kanamu Jeanne d'Arc 26 29. mercato Guédiawaye football club kii di Abdoulaye Gassama moom nag euh, day jóge ci bu géejuwaay bi dem fi nga xamante ni moom mooy ca Soudan ci club bi di Al Merrikh euh, FC Cheikhou Kouyaté moom nag euh, ñoo ngi koy dégg déggandi. ne dina xaatim ak contrat foofu ca Turquie ci euh, club bi di Trabzonspor nga xamante ni fa la Pape Alioune Ndiaye euh, nekkoon. mbokk Mariama Ba li ma gën a defal ci xibaaru tàggat yaram yi Juma Mubarak. yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM bu ñu tàggatee yaram yi ba noppi ñu féexali xol yi tabaski gay ak baax a jóob tabaski gay moolum géej oh, o xaaj ibrahim gay ba nëga ni su tegee loxo rek yëfi rëccatiku cat laam loxo bu tàng mba def-def xaaj ibrahim lile ëlëm boppam moo ne de ay jege dañuy jéeme nu ne waaye yoo yëfi tëtic o oh, DG ay liggéeykatam yoon bile ñoom ak DG ñoo bokk jàngoro ne ba nëga ni ni avance tabaski jotuñu ko fekk gaañ yi di KDG Mariama Ba ça c'est pas normal déjà suñu ay situation dafa critique buñ ne Alfayda ngay liggéey rek say mbokk yi dañuy yaakaar ne yaa am ay milliards bu fu ni avance tabaski bi laa yaakaaroon xaar mais directeur suñu àq bu ko dalee ci moom noa bi yaay yow jigéenu la waaye ñun góor hier madame toute la nuit ci suuf tey nag nee na bu mu indiwul xar mu may ma sama baat nday faatu de même que moi depuis hier mënuma tant que red chef mais nañ décréter grève yëngal rajo bi na muy waxee rek DG na direct <laughs> mu jaxate tànk yi eh, directeur eh, tribunal hier DG mbéfee li ngeen di wax yëpp dégg naa ko ah li ngeen may fayee bu jamono neexee ñu bokk bu naqaree ngeen may toogee avance de parce que force léegi maa tey nday faatu non non DG <laughs> dafa tombé ñoo ngi wax ci situation yi am média ak euh, groupe Walfadjri <laughs> mais Alfayda moom lépp jàmm o DG dëgg na bal bi duggaat bureau xolam tooy ne bëggul tiim gàcca te munu ci tus bu doon boppam rek muñ ko o xaaj Ibrahim naka muy xalaatee rek ñu pëgg ko DG dal di génn fekke ne waa fans bu rajo bi ñoo ko gane si ak ngandam xaaf xarum sept cent mille francs atum yàlla la ñu ko cotisé ñee gor ñoom jond ndaanaan Chérif Diallo DG comme ni ñu ko habitué chaque année ñu def lu ñu mën ak lu ñu mënut donte ay góorgóorlu lañu sunu doole bëriwut mais lu ñu am lu ne nañ ko ko rajo bi cette fois ci yow la ñu tabaski peut-être beneen année keneen DG amu leen morom <laughs> o xaaj ibrahim gërëm na leen baranko ñam daanu cig dënnam gaañi dëfal ko wan ko gannaaw xaaj ibrahim nekk ca xarma weex tàll béjjén ya wërale wërale këcc suur këll xaaj ibrahim di ree rek si géréel ma xar mi ngooñi falaa falaa yi bu leen ko jox ripaas noono maa ngi dem léegi marché xar mi sama bakkan laa ci teg ripaasu jamaay bi lay andi bees tàq boole ko kooraay maa koy xontal sa bopp ca la dem dellu si si wàcc fal monte vétérinaire bi di génn pikiir na xar ma xaaj Ibrahim ah Paal euh, xanaa kii commercial la nekkoon non non <laughs> libaas moo ko oolu woon pour mu xar mi dèjà pikiir na ko ci la libaas wàcc eh saa waay nga maa ngi ci kaw aywa eh, nañ dem kër ga vétérinaire bi non non non te dèjà terminé <laughs> libaas nga ni dama ne pikiir naa xar mi ci kuy bi xaaj Ibrahim mu a libaas ban xar dama la woo pour ñu dem sama dama fa am ñaari mbote pour nga traiteel ma ko vétérinaire bi ah non bi ma ñëwee bisil bi mu ma yóbbu ci xar mi dafa ne ma comme xar ngay wër bii moo fi la faal euh, waxal ma lu ma la wax dama ni la xar maa ngi waaye waxuma la nga pikiir ko de nii ngeen di def di dàqalu nit ñi o DG ni gaañ di waxee fekk moo ngi ci beneen monde yëgatul li ci yéene kaay yi kaay yi L'Obs, Le Soleil, Sud Quotidien, Walf ak kontoor woyofal yi woyofal leen seen àdduna ak lekk moo leen di may li ci yéenekaay yi. li ci yéenekaay yi ñu ànd ci ak Seydina Omar Cissé. lan bikum ceeb wàññeeku na Sénégal diwlin wàññeeku na suukar wàññeeku na mburu wàññeeku na diwlin wàññeeku na ciment wàññeeku na njiiti réew mi ba Bassirou Diomaye fay ak Ousmane Sonko ak seen gouvernement la ñu digoon askanu Sénégal mujj nañu ko def Le Soleil yéenekaay ñu ko xamal Sud Quotidien dëggal ko na gor ca wax ja fañ koo dige woon moo taxit def nañ ko réew mi yéen a kaay ne faalan di wax benn bu nekk lan lañ ca wàññi yaw seetal kilo suukar fañ caa wàññi fukki dërëm liitaru diwlin fañ caa wàññi ñaar fukki dërëm kilo ceeb ordinaire fañ caa wàññi juróom-ñetti dërëm miisu mburu bi fañ cee wàññi quinze francs vingt-quatre heures yéen a kaay na ko faala ci yokkal ndax faa bañ nga fàtte ko ciment fañ caa wàññi ñeenti téeméeri dërëm ci benn tonne bi yéen kaay bi ne ah dëgg-dëgg Sénégal yi doon xaar gaa yi def nañ ko fàttali buñ tabaskee ba pare maanaam fukki fan ak juróom-ñett ci weer wii ci la ñu tàmbali jëfee njëg yu bees yi muy prix yi l'observateur ne ñii daal gi nga seen wàññi gi pour dalal sénégalais yi rek la bés bi yéen a kaay na fa ñoo wàccee tension yi critique yéen a kaay ne ñii kay fi ñu leen doon xaar ak li ñu def fa wuutee ndax wàññi gi ñu wàññi du dara waay tur wàññi rek fi nekk turbine yéen a kaay faa bëgg ngeen toj yax bi jaar leen ca digg ba xam nga moom la ñu maanaam ñi daal dara lañ fi wàññiwut naxee mbaay la daal ci gàttal rawatina boutique yi nga xam ne ñoo yore marché bi ñooñu wàññi loolan du yomb de indépendant yéene kaay yi mel ni ku naan turbine ak yeneen yéene kaay su fekkee dëgg rek la wax état moom wàññi na te lii ñu def nii fay dëfal askan wi nga xam ne góorgóorlu yi fa ñoo sonn ci dund gu cher gi kon lii ñu def baax na man bokkuma ak yéen xalaat de teral yéene kaay na wax dëgg yàlla gouvernement milliards moom la ciy perte ngir ñu mën a wàññi dund gi loolu baaxul yéen ngeen di wax lan bés bi yéen ne nguur gi yemul fa nag li ñuy wax SONADIS fa ñoo wax na fay dikkaat maanaam fa ñuy fexe ba njëg yi bu ñu ko tàmbalee jëfee boutique yëpp commerçant yëpp fañ koy jëfee fañ koy nangu lu ko mooy yoon fay dal seen kaw turbine yéen mel ni ku naan su yeboo ngeen préparé dal ci kaw gaañi ndax jaaykatu mburu yi ñoom seen mbootaay gi këleen jiite Amadou Gaye fa la naam sëriñ ngund ak koromaak lañ digoon askan wi def nañ ko mooy wàññi leen dund gu gi waaye doxalin bi fa am ñeenti rëq-rëq yu ma ci seetlu ba ca njëkk mooy jëwriñ ji ñu dénk wàllu njënd moo waroon a wax sénégalais yi wàññi gi ñu wàññi ndax moom la dénk njënd léegi moom waxut ko ñu dem jox ko secrétaire gouvernement bi moo ko wax loolu faa gis na wartoon a demee noonu ñaareel ba conseil national de la consommation ñoom laajuñ leen ci yëf <laughs> ja moo ne njiit réew mi Bassirou Diomaye Faye coowal suuf ba nekk mbuur kap président jël na ko joxaat ko yeneen promoteur ngir ñu liggéey ko askanu jëfandikoo ko bés bi yéen a kaay moo ñu ko xamal la mu xam ba wax ko ci naka la ñuy fexe ba saafara jafe-jafe yi taskatu xibaar yi am rawatina seen bor bu bëri bii toll ci ñeen fukki milliards ñu war koo fay impôt moom Ibrahima Fall la mu gis na mooy pexe ci wàllu wi ni mel ma ko waxee ca direct news la a kaay mooy fi mu toll nii état bi fay lukkat oto yoo xam ne ca pale ba lañ nekkoon waaye gars a delloo yeneen oto yi kenn xamul fu mu de si du quotidien moom fañoo ñoo xamal laneen lu baax loo xam ne président Diomaye Faye ak Sonko ak seen gouvernement bi fañ koo def yow seetal xam nga état bi rawatina bi Macky Sall nekkee président fa ñoo yoraloon bor bu bari fukki milliards ak juróom hôpital yeeg barabu fajukaay yi ci Sénégal si du quotidien nag nee na Bassirou Diomaye président fay na leen fukki milliards léegi juróomi milliards rek la leen desal ni ki démb loolu lu baax na révélation yéen a kaay mel ni ko daan ko président la am ca centre Talibou Dabo du jàmm de war ngaa dem lijjanti ji ko prestataire ña ngay sàkku ñeenti weeru salaire yoo xam ne fayuñ leen tàggat yaram euro 2024 ca tubaab lay tàmbali bu 19 heures jotee Allemagne mooy bal ak Écosse record yéen a kaay ne Angleterre nag ak France boo moytul ñoo nar a jël kubba de ñiy jël alalu jàmbur sàcc rawatina ci jamonoy tabaski ji fi mu toll nii fa bari ba jégg dayo l'observateur fa xëy jox kàddu ay nit ñoo xam ne fa ñoo yeewoon seen xaru tabaski ñu sàcc ko seen yaakaar tas xam ñoo xam ne nag fa ñuy jaay xaru tabaski terwut fañ leen di sàcc seen xar yi te loolu baaxut lu métti la benn paa ci yéen a nee na man sama xaram tabaski mi pour ma moytu sàcc ko xam nga nan laay defam ko sama biir néeg bi jàllale ko ba ca salle de ma ma tëj ko fa foofu xanaa sàcc du fa yegg de fooy gisee xar ma ak kontoor fal yi fal leen seen àdduna ak Senelec moo leen doon may li ci yéenekaay yi. mbokk yi lii ñoo fi ruuse woon ci ay xibaar Alfayda FM juróom-ñeent fukk yu toftal benn xibaar yi ma janoo woon ci ak Alaaji Libaas Mbay ci machine bi ñoo ngi leen di jaajëfal yéen ñu doon teew teewlu xibaar yi kàddu gi doon bàyyeekoo si studio Aliou Momar Lo ci immeuble Cheikh Imam Assane Cissé fii ci dëkk bu sell bii di Medina bàyyi ñu ñaan rek yàlla mi borom jàmm fu mu may jàmm nga am jàmm yàlla ñu yàlla may jàmm fu ñu toog di dégg jàmm di jàmm mbokk yi cant ak ngërëm ñeel na leen wooy leen di ànd ak programme yu am solo yu Alfayda FM jërë ngeen jëf xibaar yi ak Mariama Ba